فعل دي نيو فاعل دورا نيو الفعل فعل والفاعل اكفاعل كالكلمة الواحدة كم بين بار لن عرب جابي كن فحقهما يلنا شنو نيار ان يتصلا ني جوكو وحق المفعول حق مفعول لك an yaatiyee mooy mu dikk baaduma seen gannaaw te nag faayil benn baat lañ moo tax dañoo war a susuroo amma mafoon moom gannaaw fi'il faayil la war a ñëw qaala woon allah yàlla taala kawe na wa warisa doon suleymaan suleymaan daawuda daawuda suleymaan doon daawuda kon faal moo war a ñëw faayil topp ci mafoolum bi topp ci taaxurul faayil mujjëg faayil jawaazan ci lu dagan ngi jàngal nag ki nga xamee ne faayil moom mooy mujj nga faayil moo war a jiitu mafool waaye léegi-léegi nag mafool jiitu faayil faayil mujj mu nekk lu dagan Eh, léeg-léeg mu nekk lu war al mafuun ci mafuun wa zalika loolu ala ñaari xaaj la jaisun mu dagan mujj gi dagan wa waajibun léeg-léeg mu war fal jaisu fam daganee te qawli taala wax yàlla jum ne wa jaa dikkal na aala firawna ñooñ firawna an nuduru way waare ak nuzul mooy fa'il jaa aala mooy mafoolum mm-hmm. bi waaye fii mafool bi nga war a nga njëkk a tudd mm-hmm. waaw gi harfu waaw xasam la daal laam gi waaqiatun fi jawaabi qasam muqadar taqdir mooy wallaahi kon waaw gi sax harfu jar la wallaahi wallaahi googu ñu dagg ko nag ne wala xadd laam googu dafa ñëwul ne wallaahi la xadd laam googu dafay tontu ngëñ ka xadaafu taqiq la jaa maati la aala mafonum bi muqaddam la mu firaanu mudaaf la nuzur faayil marfon la وقول شاعر وهو يكرم من جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري جاء ديكلنا الخلافة خلافة وكان نكنا قدرا ديالو له نيا الخلافة أو قوم ما ناوالو يرغي ولم عبد العزيز ليتك نجلنا خلافة قوية دك دك kama ataakum num dikkalee rabbahu boromam Moussa Moussa musa nga Moussa mooy faalu ata mm. rabba ma mafoon bi waaye mafoon bi moo jiitu faal bi moo mujj fii alaa qadarin cig yàlla Moussa dafa am yàlloo wuyu ji boromam ndax boromoo ko woo mu wuyu ko wuyu ji boo xam ni moom moo war a wuyu ji waaye xilaafa gi it ba ko Omar ibn Abdou Aziz jëlee xam nañ ne moom rek moo ko war a jël <coughs> jaar feelu فاعل به ولا الخلافة مفهوم بلا أوجع حرف عطف ربي معنى واو كن أو دلنيو غير معنى واو أي وكان له قدر كان في المال ناقض تاجر تانيس واسم دمير المسلم تقدر وهي لام جار مجدول هذا من المتسلم من دم في مهاجر بلام قدر خبر كان منصوب كاف جي حرف التشبين وجر ما جي ما مصدر يرى man daa wax ne que i itiyaane ataa feelu maadi la rabba maf'uulun bi mansuubun haagi mudaaf ilayhi Muusaa faa'il mu'akkar la alaa qadarin jaar ak majruur la dégg nga nattale bi mooy jaa al xilaafata maji'an ka itiyaani Muusaa rabbahu falaw qiila bu ñu waxoon fil kalaami ci wax gi jaa an nuduru ala firawna la kaana dana nekk jaay seen dagan waaye bu dee du alquran alquran ni ko yàlla waxee lañ ko mën a waxee wa kazalik nekk noonu law xiila bu ñu waxoon kama ata Moussa rabbahu baax na ci xaside boo ne kama ata Moussa rabbahu dafay baax du yàqu daal ci wàllu arab wa zalik loolu li anna damir ndax damir gi isin jamono boobu yëkkun day nekk ay doon daa ji den ci lu jiit lafzan ci baat dégg nga waaye laa rut batan du caageen daraja laa rut batan la waroon def mun na warut batan la dameel gi ci rab boobu dafay dellu ci Moussa déedéet waaw foofu day dellu lafzan warut batan boo waxee ataa Moussa rabbahu dameel bi dellu na ci li nga xam ne moo jiitu ci baat moo jiitu ci garaat loolu moom dara nekku ci Moussa mooy faayil bi moo war a jiitu te moo jiitu dama bi dellu ci mu amul problème ba waaye kama ata rabbahu Moussa nag dama bi dafa jox la mutaakirin ci baat rek waaye nekkul ci garaat parce que Moussa moo mujj ci baat waaye nag dañoo nattal ne moo jiitu ndax mooy faayil waaye nag kama ata Moussa rabbahu moom mu gën a baaxati ndax dama bi day dellu ci lu jiitu ci baat ak ci garaat wa zaalika loolu huwa aslu mooy cosaan fi amati demir ci delloo demir boo jiitalee ma fon bi it léegi am jële du ci duñ ko aaye mooy demee bi dellu ci lu mujj ci baat moom la mujj tudd waaye mujjub ci garaat taaxurul faayil mujjëg faayil bi wujuban ci lu war wala waajib fi faayil di mujjee ka xawli laa ci lu war ka xawli taala ni ko wax yàlla wa isibtala ibrahima rabbuhu mhm. foofu moom faalu moo war a mujj ci lu war wajibtalaa moom te ibrahima ibrahima moo ko nattu waaye bu ne wajibtalaa rabbuhu ibrahima nga jiital faayil bi soo baa rabbuhu dafay am demir boo xam ne dafay dellu ci mafoon bi dafay dellu ci lu mujj te moo war a mujj arab nanguwul loolu demir dellu ci lu mujj te war a mujj arab nanguwul loolu waaw bu ne wajibtalaa ibrahima rabbuhu dana baax ndax bi dafa dellu ci lu jiitu damir dellu ci lu jiitu mu aayewuñu ko déedéet jiituwul ci garaat waaye moo jiitu lafzan baax na waaye boo ne wajitala dafa dellu ci lu mujj maanaam moom la mujj tudd te nañu war a mujj tudd loolu arab du ko nam wa dalika loolu li àndoo ndax li am ba ibrahim lazima war na awdu damir delloog damir ala mutaaxirin ci lu mujj lafdan ci baat wa rutbatan ak garaat wa zaalika loolu laa yajuuzu ci langue arab <laughs> dégg nga mu mhm. tax loolu euh, kii nag ibtala feenu maadi la dégg nga moom ñu ala fata muqadara ibrahima mafoolum bi la mu aqar xaagi mu daafile mhm. وكذلك أنه قولكم ضربني دور نما زيد زيد loolu tamit yaa gi mooy maforom bi moo jiitu faan bi noonu la maa demee boo waxee dara ba iyaaya faan bi jiitu maforom bii bi soo ba mën a jokkale demir ba pare fàccale ko dafay am loolu arab nangu te jiitu faan moom ne faayil moom moo fanum jiitu ko léeg-léeg arab nam mu dagan sax nga def ko waaye moo fanum bi mën a ko nga fàccale ko kooku arab du ko nangu loolu waral bu fekkee boo jiitalee faayil bi rek moo fanum bii bi fàcc foofu dangaa war a mm, jiital moo fon ba wa zalik loolu andoona am bam law xila bu ñu waxoon daraba zaydun iyaaya lazima day war faslu damir yi teqale damir bi maa tama ku ñu ànd ak jàppale mais itisaali ci jokkale ko wasaare ku ay ba tey laay jus du dagan taaxurul mafoon mujj ak mafoon wujjuban ci lu war xam nga mafoon moo war a mujj ga léeg-léeg waaye mujj gi nag du léeg nekk lu war dafay dagan rek mu jàngal nag fa muy mujjee ci lu war ne waqat ji dana war ay ba tey taaxirul mafoon mujjee ma foon fi nax wi ci lu mel ni daraba Moussa Insa darbu dóor na Moussa Moussa Insa Insa lintifaay dalaala ngir dàquk tegtal ala failiyati ahadima ci fail ak kenn ci ñoom ñaar ma foon it aaxar ak ma foon ak kenn wala daraba Moussa Insa kooku da ngay jiital fail bi door a ma foon ndax amul lenn luy wane bii mooy faayil ak bii mooy mafoon mën naa dóor sa morom te masque yi feeñ ci mujj bañ mën a xàmme buy faayil bi ak buy mafoon kon amul luy wane ne bii mooy faayil bi bii mooy bi ci xel amul lu koy wane ci masque soo leen mënoon a rafaa nga rafaa leen dañuy xam ne bi nga rafaa mooy faayil bi bi nga ne sax mooy mafoon bi ak bu jiitu si ñoo nekkul bi ñu rafaa daal mooy faayil bi nasab mooy mafoon bi waaye fii loolu bu doon kenn moo war a dóor moroom ko sax parce que kii moo ëpp doole foofu xam bi mafoon bi xam ne ni képp doole yi war a dóor mooy dóor amu ay tur lañ rek ku nekk man naa dóor moromam te amul masque su boobaa faa bi nga jiite dóor jiital mafoon bi doo seet rek bi fala wujjee bu ñu amoon xarinatun ak lënkale maana wéetun boo xam ne këjul maanaal naa wa arda nampal na asuxra ndaw ki alkubra ku mag ku ne xam na ne suxra moo jiit waaye moom mooy mafoon bi moom lañ nampal mhm. ndax xam nga ne kat xale mënu nampal mag mhm. maasoo leen gaa waaye am na nag luy wane ci wàllu xel ne suxra mooy mafoon bi ndax moom la ñuy nampal kubra mooy faa ndax moom rek moo mën nampal mhm. waa akara lekk naa al kum masara kum masara bi mooy loolu noonu mel pom Moussa ku ne xam ne ne kum masara bi mënul lekk Moussa Moussa moo mën a lekk kon foofu ci xel am na lu wax ne Moussa mooy fayil dina moo mujj kum masara mooy mafoonu bi aw lafziya wala luy wane fayil mafoonu bi ci baat maanaam masque buy wane wala boog luy wane ci baat sax mën na ci nekk nga xam ni baat bi boo xoolee ci xel rek da nga xam ban moo nekk ban moo war a nekk faayil soo bàyyit mën ngaa jiital ma foon bi ba ka xawle ni ko si wax dara ba dóor na Moussa Moussa Salma ku ne xam ne jigéen mooy dóor góor mooy dóor jigéen déedéet maa ngi jum sax waaye bu jigéen góor moo gën a mën a dóor jigéen waaye fii baat bi dafa am taaw taanis te kenn ki jigéen la kenn ki góor nga xam ne kon te nekk jigéen moo jëf ti de ci xel góor moo war a gën a mën a dóor jigéen waaye ndem baat bi jigéenal nañ ko fexeel bi jigéenal nañ ko kon da nga xam ne fexeel bi mooy jigéen ba dara ba dóor na Moussa musa salmaa da nga xam ne Salma moo dóor Moussa lu ñu ko xamal du mask suñ doon xool ci xel te dañ moo war a dóor waaye fexeel bañ jigéenal mooy wane kon Salma moo def wala Moussa duñu wax dara ba dara ba la wax. ودر ودور موسى موسى العقل ما مقل مع عيسى عيسى ايه فوفو دنيا خمنا ممو ممو دور Moussa moo doon foofu dégg nga waaye fii bu la neexoon nga jiital ma xoon bii rek dafa woon saa yu amee taqdim nga jiital moo naa wa dara ba dóor na insa musa Moussa insa insa alaaqila mu am xel wala nga ne dara ba dóor na insa insa Moussa alaaqilu xam nga musa gi da ko wutal naatu rafaa ko kon ñu xam ne Moussa gi mooy faayal fii parce que moom naatum dafa rafaa kon moom dafa rafaa insa moom daf ñu leer na ma xoon bii nga jiital ko ak nga ñàkk ko jiital booy dara ba Isa Moussa al aqilu ah dañ ne kon Moussa comme que dafa rafaa moom moo dóor ndax lu naat si lu rafaa dafay rafaa bu doon eh, moom mooy mafoon bi aqila ngay wax yooyu yëpp dafa am wane ci wàllu baat luy wane kan mooy faal bi saa yuñ daal kii mooy faayil bi kii mooy mafoon bi jaasa dagan na mafoon jiital mafoon bi alal faayil ci faayil wa ak yéexe ko ànd ci moom su boobaa mën ngaa jiital mafoon bi mën nga دا امول لنت انتفاع اللبس ان قد اقول لنت في ذلك الشيء ملبوب كون سوفيك را بوجي تيما فون بي واحد لنت دنكور مجل وانم قمل انو لي ام بام كما لا يجوز كم ني خمن دغان في مثل تشري ملي دابا دورنا موسى موسى عيسى عيسى كان يتقدم مجيد المفعول المفعول به هل الفاعل تفاعل به وحده مم دونغ لا نيوخ مفعول منو جيتو فاعل به su fekkee wax ji dafay lënt bu mafoon bi jiitoo duñ xàmme ki def ak kañ def kazalika nekk noonu laa yuusu du dagan taqdimuhu jiital mafoon xale yi te nga ci faayil bi waaral fenli ak ci fenl bi mafoon yi mënul jiitu fenl dégg nga mafoon mënul jiitu fenlu li àllaa yi taxaw waxama ngir buñ jort mënu jiitu faayil lañ wax ci côté bi waaye tamit mënu jiitu fenlu mut la xan su fekkee <coughs> déedéet maa ngi wax mut la xan su fekkee yi dafa am laay wax saa ne moo fa mënu jiitu faayil du mën a jiitu fenlu yàllaa yi ngir buñ jort andoona moom mubtadawul mubtada boo ne Iisaa daraba Muusaa dañu yaakaar ne Iisaa moo fa woon bi kii la mubtada la mu day mel ni sax moom moo dóor boo nee Isa daraba Moussa day mel ni Isa dóor na Moussa loolu a du ko nangu foofu laa daraba Moussa Isa rek nga mën a wax ma foofu mënu jiitu faayil bi mënu jiitu faayil bi ndax bu jiitoo faayil bi duñ xam ne faayil ak ma foofu bi bu jiitoo faayil bi dañ yaakaar ne mubtada waa bi mu taxamilun dafa làmboo li damir yi ñeel damiru mafoon boobu waaye nag Moussa dafa mel ni Moussa mooy mafoon saa yoo jiitu la ne saa dafa mel ne saa mubtada la fi'l bi faayilam demir la buy dellu ci Iisaa Muusaa maxoolum bii la fii wax jii day lënt kon lu mel ni su amee daal fi'l faayil maxool rek moom la nekk wajus dana dagan fii misli ci lu mel ni daraba duuna zaydun zaydun amran ani taqaddama mu jiitu al mafuul mafuul alal faayil ci faayil soo ne daraba zaydun amran maska am na fa mën ngaa wax daraba amran zaydun بس خمن فاعل بمفعول به سواء مفعول من نجد فاعل فأن يتقدم على الفعل من نجد فاعل به من قال عمرا ضرب زيد دار لن تموت كنا خمنا عمرو مم لن دور نكت فم مبتدا عمرا ضرب زيد دار ماسك بمقولة يعني لعد من معني يجد نك أجي ترى من ذلك تشرور كن مفعول بلير من نجد فاعل من نجد فاعل قالوا أن الله تعالى كون فريقا أبكر لهذا جملة إيه هذا جوفن اي هذا فريق هذا فعلا ما يلا فاعل به هو ده فريق المفهوم به التف مفهوم به موجود فعلا مفهوم به منادير فعلا وقد يكون يوم تقديم جيت لم واجبا دي الور كقوله تعالى لي نك مفهوم به ورا جيتو كان لا جيتو دي ور موي تو فك لا نك مفهوم موم تي كوماسمان جمله لا ور نك دا فام بار يو خامني نيوم تامبلي ما جمله رك كقوله تعالى نيكو خيال جمنان ايما تدعو فله الاسماء الحسنى su ko defee ayen ismu charte la te charte moo war a nekk ci commencement jumla gi nekk fi maal na su mafoon bi bi ma zaida la te doon fenn maa di majum la te doon fenn maa di majum ndax fenn charte la bu nun waaw gi mooy وأقوم يفعل بدينا أسمع أفعل خمسة ربوك فاجي واقعة في جواب شرط لأيا له جار مجرور لنك خبر مقدم أسمع مبتدا مؤخر حسنى ناطلة فهو فأيا مفعول تدعو لا مقدم من جيت العالي تفعل فعل لا جيت القوات لأنه نحن شرط شاطرة وشرط شاطر لو نيال نقول صدر الكرام جل بينك وخ وتدعو مجزوم من جسم لبيه تأيو سوكو دفع مفعول دال Euh, bu fekkee dafa nekk loo xam ne ci commencement barak la mën nekk comme suñu charte soo ba ma xool bii bi dafa war a jiitu ci lu war in uridu lil islam mastata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi